bi sifflé na deuxième combat baa ngi noonu ci poule wala deuxième combat poule B dox ci diggante Libidor ak Caaka Fay Libidor premier combat am daf ko ñàkk Caaka Fay premier combat am daf ko ñàkk ñoom ñaar faw am ku ci am trois points am ku ci perte ndaysaan Libidor Caaka Libidor Caaka Caaka Faye Libidor mbokk yi Caaka Faye moo la woon ginnaaw Libidor nga jàkkaar lool ndaysaan ñu ngi fii ci arène nationale Teranga Sport moo ñu fi woo ndaysaan tegal xale yi six millions yaa ngi noonu ndaysaan benn combat benn combat la ko def ku bëre génn dangay dem ma ngay wis saan ñu ngi noonu ña nga noonu ndeysaan waa côté bee ñu ngi daw moo lay woon ni ma ngay taw fële ndeysaan gaa yaa nga noonu mbër yaa ngay bëre muy taw mbër yaa ngay bëre muy wis ndeysaan Ibrahima nañ tuxu kaa ñu yëg ci kaw wala bàyyi ma dem demal demal demal demal demal yóbbu ma ñëpp ku ci nekk actuellement ci bi am nga sa premier combat da ngaa ñàkk. ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar.